gannaaw bu jotaay boobu jaa jàllee nag nee na la benn salum saalum ñëw fekk ko ci biir gaal gi nuyu ko yëkkati addiye am solo jox ko ni ko damaa dégg ñu ni yaa ngi ñëw ci gaal gii ñu jëme la gabam loolu moo tax ma ñëw ngir siyaare si la bëgg nga ñaanal ma yàlla te dénk ma sëriñ bi ne ne ci jëmmi jëmmu jooju ci la dégg turu gabam ci laa xamee fa fañ fañ ma jëme nee na ma ñaanal ko yàlla ndénkaane bi mu sàkk woon ci ma nit ma ne ko xamal ma ne ko li ma lay dénk de mooy nga xam ni foo mën a nekk na nga xam ni amul benn buur budul yàlla xam-xam yi am njariñ yépp ñu ngi daje ci laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah nee na ma firil ko ko ci wax ji bayit yii laa ko defal firile ko ko maanaam laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah موي فكل ذي توجه لغير من له الأمور والبرايا في الزمن فليس ذا توجه لفائدة ونفسه لباب نار قائدة ومن توجه له بغير ما أتى به من اصطفى مكرما سيدنا محمد صلى عليه في آله وصحبه من أبدى علاه فأبدا لا يحتوي غير الندم يبوء بالنار وزلة الخدم أنا مسنتي مسنت يالله daal di delluwaat ca dun ba sëriñ bi dana ma ne ko képp ku jóg jëm fu dul ci yàlla mi nga xam ni moo moom mbir yépp ci loxoom la nekk mbindeef yépp yi moo leen moom ku jóg jëm fenn fu dul ci yàlla moom di fa nga jëm amut njariñ te sa bakkan it yaa ngi koy wammat jëmee ko ci buntub safara waaye ku jóg jëm ci yàlla it te jaari woo ko ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi lu dul ak rëccu doo ko am te da safara it lañ lay faye ak tarxiisug ndëggu kon loolu li muy tekk rek mooy eh, kuy wut dara boo ko wutewul ci yàlla doo ko am kuy wut dara ci yàlla boo ko jaarewul ci yonent bi doo ko am te ñaar yooyu yëpp nag lu ci ne safara képp lañ la ci faye muy wut lu dul yàlla ak wut yàlla jaare ko ci fudul sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon Sëriñ Tuubaa ak taxawaayam ci sunna taxawaayam ci xëñtu sunna si yonent bi taxawaayam ci bañ biddaa taxawaayam ci saxal tawxiid diggante ma boroom dafa feeñ ci ay waxam ak ci jëfam ci bi muy jaxasoo ak bi muy wéet bi muy wéet ak bi muy wettaliku ci biir fi mu dëkk ak bu tukkee